maa leen porte bi. gërëm yéen ñëpp ci seen message de sympathie message de sympathie euh, à notre endroit. ci li nga xam ne moo xew euh, tey te ñun ñëpp ñu gis ko mu wane ne li ñu waxoon il euh, y un an bi ñu jàppee ay membres mouvement citoyen s'il vous plaît mars ci kanamu ministère euh, de l'intérieur ñu jàpp leen ginnaaw bi ñu leen jàppee bi ñu leen di libéré ñu dugal leen ci benn camion ñu fekk fi ay policiers en ñu dóor leen ba seen yaram nor ñu ne déet ñu sànni leen fu nekk ci dëkk bi man ñu sànni ma ci yoonu Thiès boobu lañu waxoon ne président Macky Sall dafa créer ci biir police dafa créer ci biir gendarmerie ay unité yoo xam ne seen taxawaay mooy def loo xam ne benn policier sañu ko def seen taxawaay mooy def loo xam ne benn gendarme bien formé dina ko def président Macky Sall dafa profité ci recrutement police gendarmerie yi mu dem ginnaaw événement mars 2021 yi pour dugal ay assassin pour dugal ay nerviwam ci suñu ah. biir police ci suñu biir gendarmerie ñooñu lenn rek lañ leen jàngal mooy tiire lenn rek lañ leen jàngal mooy tiire fépp fu am ay événement wala ay manifestation ñoom la ñuy indi ci manifestation yooyu wala ci événement yi ngir ñuy tiire ngir ñuy torture ngir ñuy toroxal euh, loo xam ne benn policier wala benn gendarme du ko def tey nag li ñu gis ñun ñëpp ñoo ko gisandoo mooy ay policiers yoo xam ne président Macky Sall moo leen yebal d'abord ñu dàq journalistes yi moo tax ma leen di masawu di leen di masawu yéen journalistes yi. Mhm. ndaxte balaay ñun ñu ñuy dóor grenade lacrymogène yéen la ñu njëkk dóor grenade lacrymogène pour ngeen bañ a am image. pour ngeen gañ am ay vidéo yuy firndeel ne président Macky Sall dictateur la yuy firndeel ne président Macky Sall day massacrer son peuple lu yuy firndeel ne président Macky Sall day réprimer son peuple donc yéen la ñu njëkk dóor yéen la ñu njëkk gazé ñu ngi leen di masawu bu baax a baax ci li leen dal. sànq bi ma nekkee ci sama néeg ci biir euh, samu suma mais suma assistance am na seen benn naataango boo xam ne dafa ñëw ci sama chambre mu wàccee pantalon am comme man il avait la même blessure exactement dangay ngay foog ne photocopie la man fiñ ma gaañ foofu lañ ko dóor grenade lacrymogène qu'est-ce à dire dafa mel nii le président Macky Sall dafa jox policier ak gendarmerie képp kuy góor nañ la viser ci sa awra maanaam dinañ la gaañ foo xam ne dina métti doo dee waaye ba pare di nga ko wane moo tax je vous dis clairement c'était important même bu fekkee damay wàccee sama pantalon pour que sénégalais yi africains yi àddina bi les amis de l'Afrique et du Sénégal gis ne lii moo xew Sénégal et c'est tout simplement inacceptable te duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ku dee sa yaay juraat li muy tekki mooy yow président Macky Sall boo ñu gaañee dinañ dem faju bu ñu paree faju ñu génnaat jàkkaarloog yow loolu mooy ku dee sa yaay juraat ku dee sa yaay juraat lu muy tekki mooy boo boomee Guy Marius Sagna askanu Sénégal dina feeñal yeneen Guy Marius Sagna yuy jël place su Guy Marius boo boomee Abbas Fall wala député Fatou Ba wala xawma député Rama Anta Bodian bi nga xam ne moom itam dañ ko dóor grenade lacrymogène omolé boo leen boomoon sax askanu Sénégal dina meññal yeneen Abbas Fall yeneen Rama Bodian yeneen Fatou Ba yeneen Doudou ak Fatou yeneen Jeanne ak mari yoo xam ne ñoom ñooy wëyal xeex bi donc maa ngi gërëm euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon euh, ci suma assistance ñi nga xam ne euh, ñoo ma faj bu baax Euh, defal ma ay perfusion euh, defal ma ay rajo ak ñoom seen euh, ba ma mën a génn heure bi taxaw ak yéen di wax ak yéen mbir mi nag c'est simple président Macky Sall daf ñu bëgg a imposer tout sauf le président Ousmane Sonko ñun nag dinañ ko tontu imposer ko tout sauf le président Macky Sall mooy ñëpp mën nañ nekk candidat ci Sénégal jamono jii ba mu des moom et on va le lui du ay grenade lacrymogène moo ñuy dawloo du ay góom moo ñu nara a moo ñu nar bu ko neexee mu nangu suñu bakkan dinañ continuer xeex bi ndaxte troisième candidature troisième mandat du fi am te Ousmane Sonko day bokk Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade ñi mu tere ñi nekk candidat foofu lay yem dootuñu nangoo ci beneen candidat ñu tere ko mu nekk candidat ñun élection présidentielle la ñu jëm 2024 et non sélection présidentielle ce n'est pas au président Macky Sall de sélectionner ceux qui vont être les candidats donc résistance bi day continuer résistance bi day continuer et je lance un appel à tous les citoyens sénégalais daw grenade lacrymogène saaga suñu quatorze martyrs de mars deux mille vingt et un la ku góom toog ku góom tax a toog sa kër saaga suñu quatorze martyrs mars deux mille vingt et donc fii ñi war a daw numéro un mooy président Macky Sall mi nga xam ne mooy détourner alalu sénégalais yi ñu naan déet mu leen di rey mu leen di boom donc bu daw di am moom moo war a daw et pas nous bu daw waree am mooy ñi ko wër te ñuy sàcc alalu Sénégal te mu teg si son coude mais ce n'est pas à nous de fuir ma ne ñun askanu Sénégal du ñun ñoo war a daw président Macky Sall moom mii rey suñuy doom di boom suñuy doom ndax bëgg beneen Sénégal moo war a daw moom mii di détourner suñu alal moo war a daw ces milices yii sàcc suñu xaalis rusuñu sàcc bay sàcc ci jamono coronavirus mbas mi ñoom ñoo war a daw bu ñu dawulee ñun waruñu daw ndaxte ñun ñoo nekk ci dëgg ñun ñoo bëgg a tabax senegal Sénégal bi nga xam ne ñoom ñoo koy yàq yaxet donc ñun waruñu daw duñu dellu ginnaaw waaw ñun nag ñun ñëpp nañu génn